sécurité ak yenen ak yenen man ak samay morom ñu taxawulon kurel bobu don défendre cause bobu yalla dogal nak biñ ci nekké ci régime président Macky Sall taxawun ñu ba yalla dogal na tay liñu don jambat man nañ ni li ci ëpp antuna ndax li taxoon ñu dugg ci rek mooy amoon nañ problème mën naa ci wax benn muy problème ndox Dakar di nan ndox bo de guerre bi def plus de 250 km. à 7 km, ndox bi ñu litre bu di am de sel kër du durée de vie jigéen bu tolloo sax do ko utiliser euh, kër bu ci nekk daan citerne citerne d'eau chaque mois 30 000 nous de 90 millions le mois. donc euh, mu metti won trop ci ñun ñu xex ci nak ba yalla dogal andon ci ak ku ñu wax euh, jibo ko yalla nako yalla yàlla dolli mu nek député defal ñu question orale à l'assemblée nationale euh, ba Omar Gay mo fi nekkoon ministre de l'hydraulique yalla dogal mu jaaré fofu ndox bi ñew tay ji yoon bi ñew na ñoo ngi sumbaat yeneen sumb yoo xam dina gëna amal njariñ suñu askan amal njariñ suñu suñu suñu localité waaw loolu moo ñu dugaloon ci politique ñuy yëngatu ngir loo xam ne dina dina yokk ak jàppandal ci secteur bi ñu nekk parce que dañu wax ne ay années yu bëri dañu dañu fàtte woon euh, considération bi manqué woon donc euh, comme nag ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñu taxawaloon suñu kuréel doon xeex ci loo xam ne nii intérêt ñëpp la woon. xamante ne ni euh, moom ngeen porté au niveau de ce mouvement là muy euh, mouvement pour la renaissance de Ñomre le choix bi ngeen porté woon ci euh, alliance pour la république lan moo ko indi woon à l'époque da ngeen jàppoon ni ñoom ñoo nekk ci nguur ñoom ñoo leen mën a saafaraal jafe-jafe yi nga xamante ne nii moom ngeen doon à l'époque wala vision la boo xamante ne nii da ngeen ko doon partagé ak ñoom. waaw dañu partagé woon la même vision parce que ñun li ñu soxal mooy suñu localité jëm ci kanam. ñu gis ñoom ñu daan ndox ci loolu. waxtu wu ñu demee ci ñoom ah la ñu leen di laaj muy loo xam ne comme dañu bokk ci réew mi. doon ay sénégalais la ñu leen di laaj ñu ñu ci taxawu. di ñu ci di ñu ci di ñu ci jàppale. parce que li ñu doon xeex jëmul woon ci ñun. mais ci suñu communauté la jëmoon. yàlla dogal ñu liggéeyandoo ci ak ñoom ci ay fànn yu bare bare bare bare bari. ba Euh, oh, suñu ci atteindre suñu objectif à cent pour cent mën nañ ne atteindre ak quatre vingt pour cent. d' accord euh, à chaque fois euh, dañuy am ay mouvement je crois que xaw nga ko junj léegi. d' habitude ñenn ñi dinañ dugg ci mouvement pour développement communautaire la dégg la mais dañuy xool fi nga xamante ne ne foofu la ñu am yaakaar ni ki dinañ leen ci mën a jàppale. pour mu taxaw fa après Macky dem. avancé yi nga xamante ne moom ngeen jot na am à travers mouvement boobu ci ñoom Ñomre euh, fan la ñu mën a wax ne foofu lay toll fi ñu toll nii dafa taxawandi wala ba tey yéen a ngi ciy dem parce que d'habitude gars yi dañuy def rek euh, dinañ am ñu ñuy àndal ci politique mais une fois que ñu xaw a wane ginnaaw mais day mel ni dañuy reprendre à zéro. waaw ñoo ngi ci sur le même lancé. Mm-hmm. di gën liggéey pour suñu suñu commune. Mm-hmm. di y liggéey pour suñu pour suñu gox. di liggéey gëna liggéey pour suñu suñu askan. liggéey bi nag bon avant président Macky Sall après moom aussi day day continuer tant que ñu ngi fi euh, lu ñu njort wala lu ñu xalaat lu mën a suñu suñu askan la. Mhm. ko ko ko def alors euh, ñu gis ni euh, parmi euh, question yi nga xamantene ni nii yéen ngi doon sàkku ñu défal leen ko wala ñu taxawu leen ci ci bobu les localités bokk na poste de police bo xamantene ni nii waxoon ngeen waxon ngeen à l'époque ni que amo leen ko est-ce que tay ji amna ay jéego yo xamantene ni nguur gi fi nekkoon teg nako ci sens bobu waaw ñu ngi ci doon dox pour am poste de brigade ndax insécurité bi xaw na métti. Mhm boo demee sax ci dëkk ba dafa am euh, wax association Ñamre mhm. may nuyu le président Cheikh mhm. nga xam ne nga fay def bu remarquable dañu sax euh, jël ay volontaires mhm. di leen fay chaque fin du mois pour ñuy dox ci sécurité wu dëkk bi parce que ça jur ba bari na fa euh, yu bëree bëri am na donc lu lu ñu soxla la amoon nañ ci yaakaar nag ci lii weesu doon nañ ci dox ay jéego te incha allahu rabi du duñu duñu du ñu tàyyi ndax dafa nekk loo xam ne suñu droit la donc fi ñu ci war a jaar ak fu ñu ci mën a dem dinañ ci dem ba incha allah am ci ndam. léegi yéen ngi ci euh, biir APR wala euh, da ngeen génn APR ber seen euh, daara nekk ci seen ay activité boobu. waaw ñu ngi ci suñuy activité personnelle mm-hmm. pour le pour le moment. d'accord suñu activité personnelle. Mm-hmm. de comme li nga xam ne moo taxoon ñu taxawal ko rek ci loolu lañ nekk ba léegi. Mm-hmm. waaw suñu intérêt communauté. te dafa élargi dafa gën a yaatu ba tey jii nekk lu mel ne c'est au niveau national. waaw parce que ni mu amee man ñoom rek la amee sama yeneen moroom yoo xam ne dañu nekk ci yeneen localité yu Sénégal. te ñu bokkoon benn cause boo xam ne moom lañ doon moom lañ doon xeex ñëpp.

waaw ci kaw ñu ñu ñu yem ñu yem ñu yem ay ay ay ay xalaat ci mhm. walla ñu yem ay yem ñu bokk benn vision boo xam ne mhm. jàpp nañu ni jàpp nañ ne buñ ci àndee dina dina dina dinañ mën a sori ñun ñëpp. alors euh, ñu gis ni euh, euh, nguur gu bees moom moo fi nek yow ci sa bopp émettre nga ben réflexion par rapport wala bok ben évaluation par rapport à 100 jours de gouvernance yi nga xamanteni ni le régime actuel def nañ ko à la tête de ce pays nga cay wax ni déception nga am ci fànn yu ci mel walu wàllu gu cher gi nga xamanteni ni dañu wax ni dañu ko wañi ci walu également stratégie de gouvernance globale de l'administration situation itam am nga ci eh, li nga xamantene ni modi mbetel ndax mën nga ñu eh, wax wala bok nga jox ñu argument yo xamantene ni eh, mom moy justifier sentiment bobu nga xamantene ni am nga ko par rapport ak le régime bi fi nek waaw li tax ma wax lolu moy ñom avant ñuy ñëw au pouvoir mm-hmm. dafa am rêve bo xamne dañu ko jaayoon sénégalais d'accord te man sama moy wax ak discours ñom nañ ko xaaratuñu leen ci discours xaaratuñu leen ci stratégie li ñu leen di xaar rek mooy ay actes. Mm-hmm. comme pendant dix ans euh, wan nañ ñu ne ñoom ñoo yor solution bi. Mm-hmm. wan nañ ñu ne bu ñu ñëwee fii ci Sénégal jaratul benn jeune di jël gaal gi di dem. Mm-hmm. bu ñu ñëwee Sénégal euh, danañ wàññi dund bi. dinañu wàññi électricité. dinañ wàññi lépp. joxe woon nañ sax ci seeni campagne yaakaar naa deux mois. donc bu yàlla dogalee ñu agsi ak jàmm. Euh, ñi ëpp ci Sénégalais yi wala ñi ëpp ci ñi voté am ci ñoom yaakaar porte leen ñu nekk seen choix. man personnellement dama yaakaaroon ne bu ñu ñëwee malaa ñu agsi fii loolu ñu waxoon lu mu métti métti métti métti métti métti dinañ ko def euh, bu yàlla dogal leen nag ma am may utiliser sama xel di xalaat mm-hmm. dafay mel ne. dañuy wax di contredire seen bopp. loolu tamit du nekk ne luy dal xel la. Mm-hmm. parce que dañu dañu dañu sàkku ci nit ki waxi démbam soo ko ak waxi mu nekk benn mais contradiction mm-hmm. yaakaar naa bu fekkente ne da ngay xalaat rek wala nga positivement sa xel mënul dal ci li nga xam ne moom la ñu moom la ñu moom la ñu gisagoon pour le moment. bien vrai que nag cent jours kenn mënu ci kenn mënu ci def bilan. Mhm. waaye nag comme li ëpp ci sénégalais yi amoon nañ yaakaar ni. Mhm. ñoom lii ñuy wax loolu la ñuy def. d'accord 100 jours comme ni nga ko waxee kenn mënu ci euh, def bilan waaye ndax jàpp nga ni tey liggéey yi nga xamante ne nii comme ni nga ko waxee defal nañ ko askan bi ci 100 euh, jours wala ci 3 euh, mois war nañu ko mën a taxawal wala war nañ ko mën a def. waaw man li ma jàppoon mooy man war nañ ko mën a def ak nit ñu ko waxee. parce que ñi doon campagne bari na. am na ci ñoo xam ne bu ñu gañe woon kenn du leen fàttali loolu. Mm. parce que rek xam nañ ne dañuy ut. te buñ outé aussi peut-être dañuy dañuy dañuy dañuy def li ñu mën mais nak ñom dañu joxoon ay dates yu précis joxoon ñu ay solution yo xamné jappoon nañ ni lu concret la euh buñu ñëwé ba fii tamit revirement du mëna du mëna du mëna du mëna du mëna a am. wala ñun duñ mëna d'accord ci loolu. Mhm. ay mooy que euh, euh, ni ñu ni ñu promettre woon euh, amaana acte yi ñu sonn posé dalul xel dafa mel ni ki dañuy wax di dédire seen bopp ci ci li mu jógee wax nii rek su ma ci delloo ban yaakaar ban gis-gis nga ak fab ni ki ki nga xamante moo fi nekkoon njiitu réew di président Macky sàll moom la amee ci taxawaay bi nga xamante ne tey moo andi ñii ci gouvernement bi tey ban taxawaay peut-être moom la waroon taxawee wala ban taxawaay la am tey ba tey loo xam ne mëtalewut ko peut ba mu tey mu àggale tey ñii nga foog xam ni ki ñoo nekk tey ci suñu kanam di ñu jiite. est-ce que loolu formulé waat question bi bien compris <laughs> je veux dire xam nga da nga ne yaa ngi ànd ak waa APR depuis 12 ans. 2012. Mm-hmm. Mm-hmm. nga commencé di ànd ak ñoom di def politique. tey ñu gis ni ki 12 ans sa leader moo fi nekkoon tey au pouvoir ak li fi xew yëpp depuis vingt deux mille vingt et ba tey ah, ah, ah, moom tey li am ci réew mi mënuñu ci seppi loxoom kon bu ñu yegsee tey ba ñii tey jiite ñu ñii di ko jiiñ Macky Sall ñii di ko jiiñ ñeneen fan nga yaakaar ni foofu la tey sa leader fayiree ba mu dem ba yegg fii ba ñëpp wan ko ginnaaw tey jox ñeneen. waaw président Macky Sall yaakaar naa deux mandats la waroon def def na ko. Mm. élection yi tamit nekul won candidat. Ah, mais am nañ ko mu jiitaloon. Euh, waaw am na ko am na en fait question bi lutax ma kay poser. Mhm. parce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal euh, un parti au pouvoir. mu dem élection ñu gagné ko premier tour avec score bi am yëpp du moment où njiit bi nga xamanté mom ngeen andalon tay dafa désigné won kenn né ànd leen waaw xam nga fofu mom li ci wax rek moy li ñu li ñu nga xam ne ñu bari liñ ci xam mhm. mooy que bu ñu demee ba dix jours des ci élection yi. Mhm. mu génnee ñoo xam ne dañ leen a jàppoon. Mhm. yaakaar naa am na ay compromis am na lu ne ci seen seen diggante. Mhm. peut-être nag jamono bu. bu ca wax àggee yaakaar naa ñi ko war a wax dinañ ci dinañ dinañ ci dinañ ci. mais yow sa gis-gis dinañ ci ci wax. yow sa gis-gis da nga ni moom am na lu mu ci doon wala. waaw mm, bien sûr ñëw am na lu ci doon. waaw mm. ñoom ñëpp am na lu ci doon parce que amul benn raison buy justifier li xew-xew. Mm-hmm. donc euh, bu loolu bu loolu amee rek. Mm-hmm. ñoom am na lu ñu waxtaanee seen biir loolu ñu waxtaanee nag. peut-être le moment venu. Mm. dinañ ko dinañ ko dinañ ko dinañ ko te ci table bi. dil bu ñu teg ci ginnaaw ah. boo xam ne def nañ ko sur le dos du peuple sénégalais. bien sûr. yow loo jàpp ni mooy dil. waaw dil dil la xam nga nit nga jàpp ko <laughs> ñoom nga jiñ leen ni leen ñoo def ñoo def lii ñoo def lii bañ arrêté leen jàpp leen. Mm-hmm. dix jours euh, des ci des ci des ci yi nga génne leen. Mm-hmm. donc gisee ngeen waxtan ngeen waxtaanaan ngeen. Mhm. amna lu ngeen wax amna lu ngeen teunk mhm. donc loolu ñom ñoko ñoko ñoko ñoko ñoko teunk ñoko waxtane d'accord mhm. alors batay ci euh, Walu euh, régime bu bees bi nga xamantene ni mom mo fi nek xeyna dañuy génn touti ci euh, cadre politique pas carrément sax mais wax ci li nga xamantene ni mom modi immigration clandestine ñu gis ni récemment def nga ab sortie pour exprimer sa tristesse par rapport ak li nga xamantene nii fi muy euh, personnes ont faatu euh, ci mouride ni ci jamono jo xamantene ni euh, dañu doon teel pour dem fa nga xamantene ni mom Europe. ñu gis ni ci sortie nga sentiment de désespoir comme niko sénégalais yu bari di waxé bokku na ci li tax ndaw ñi di jël seen bakkan ci l'espoir est perdu au Sénégal parce que. li ma la wax sànq rek dafa am loo xam ne moom lañ gëmloo woon ndaw ñi jaay leen ko pendant dix ans ndaw ñi adhéré ci massivement. Mhm. gëm leen gëm leen gëm loolu ñuy wax projet. peut-être ñu bari nee nañ projet amul. Mhm. parce que mu doon ñëw ba heure bii nga taxaw ne projet bi defe naa décembre lay pare wala loolu kon mënuñu mënuñu mënuñu d'accord ne projet amoon na mais ak lu ci mën a am rek loolu gëm loo woon nit ñi. Mhm. xëy na nag opposé wu dafa neex. parce que boo nekkee opposition moom da ngay tëdd lu xew nga mën a bind ba mënee wax nga wax ba mënee jéem nga jéem amoo benn responsabilité ki ñàkk xel nag wala ki nga xam ne moom peut-être yomb na convaincre mën na la gëm. mën na gëm ci ci ci ci ci li ngay wax surtout nag ñoo xam ne peut-être fañ doon liggéeyee mosuñu fa am yenn benn yenn responsabilité. seeni wax boo ko dee gëm euh, lii rek la ñu mën a indil. mais bon li ñuy li ñu mën a wax rek ci immigration clandestine. mooy yaakaar bu tas ci ndaw ñi. yaakaar bu tas mooy. ku ne gis na événement yi fi am veillu tabaski bi mm. li xew Kër Massar ak ma les marchands ambulants li xew Colobane li xew feneen ak feneen. mais mais li xew li xew li xew golf monsieur monsieur Kanté foofu foofu dinaa la xaw a dagg. Mm-hmm. tuuti yaakaar bu tas bi yaa ngi koy wax mais gis nañ ni immigration clandestine du phénomène boo xamante ne nii léegi la tàmbali. waaw du phénomène boo xam ne léegi la tàmbali mais xam nga xam nga comme dañu wax ne li passé baaxul. d'accord 12 ans yëpp dañ ne baaxul on est d'accord mais comme ñëw nañ ne baax peut-être ñom waroon nañu jël seen responsabilité tay wan lo xamni ni dina dalal xelu xalé yi. Mhm. dina dalal xelu jeune yi. mais depuis nga dégg vague yi dem décès yi et tout 89 vingt neuf yi. Mhm. Euh, soixante sénégalais ñogi Tunisie. Mhm. yenen ak yenen yang koy dégg. Euh, bon dé gisuma fu ci président de la république waxé wala fu ci premier ministre waxee mhm. wala fu ci ministre des affaires étrangères waxee mhm. donc loolu day day day day day jur frustration mhm. parce que ñoom ñoo jàkkaarloo woon ak sénégalais yi bu euh, benn benn maçon a décédé ci géej gi dañuy génn bind wala ñu génn wax wala ñu génn def live peut-être tey ji yaakaar naa ñoom ñoo nekk au pouvoir am nañ tous les éléments yoo xam ne lépp luñ bëgg leeral mën nañ ko leeral bi Donald Trump amee incident ci campagne am suñu président génn def tweet naqarlu ko. yaakaar naa li mu gënoon a rafete mhm. li gënoon a jaaru li gënoon a jekk. Mhm. mooy bi di amee. Mhm. jaroon na mu def adresse à la nation. wax ak askan wi ñaax xale yi. xamal leen di leen dont wax leen wax joo xam ne dina yokk seen yaakaar. mais tey jii bari na xale yoo xam ne amatuñ benn yaakaar. parce que les wax sank amul ben urgence justifier veille tabaski. ku ne a exode rural dafa am ni immigration nit ñu joggé ci village di ñëw ci capital pour di pour di daan seen doolé urgence amul ci nga parce que seen réew la nekk kenn cautionné wul kuy jaay ci kaw wala kuy jaay ci trottoir mais dañu nekk ci pays sous-développé état mënul créer ay emploi des ñoom en âme et conscience xamoon nañu ni dañuy naxee waaye état du créer emploi état day créer ay mécanismes encadrer nit yi surtout jeunes yi ak femmes yi ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. entrepreneuriat comme ça ñoom ñu mën a liggéey mën a yor seen bopp. Mm-hmm. mais képp kuy ci taxaw naa la su ma faloo dinaa ne auto liggéey kooku benn président wala benn état mënu ko boo demoon ba pare ci gaar yi français yi ñu ngi fa tëdd chômeur fépp la am ci àdduna bi mais booy bëgg dara. wala ngay ut dara loko meuna mën a bëgg bëgg bëgg na nga fexé ba sa askan nga wax leen deug mhm. deug bi nga leen di wax ci nga sukkandiku ba bés bu yàlla dogalee nga jot ci lolu do am benn pression dinañ la comprendre dinañ xam ne da nga bëgg am nga yéene dinañ la mën déglu mais bu fekké da nga ñëw bëgg joxé say délai yu précis mhm. joxé say date ki mënul li ma man li ki mënul li ma man li su ngeen ma defé lii su ngeen ma defé lii li fi waxon lolu ñom lepp mi ngi fi mi ngi fi yagul 2014 ak légui yagul dix ans loo xool si Europe di nga ko gis donc day day day day day day day day jur ay day jur ay vague de frustration yoo xam ne. Mhm. tey mënuñu ko exprimer fenn furul dem dem dem dem dem liggéey parce que xale juddu ci kër yaru fa màgg fa ak mhm. pression sociale yi am ci ci ci ci réew mi màggandoog nit mu man lii mënoo ko ëpp la jom. Mhm. peut-être daf la wërsëg wala am ëpp lay jàppale. donc yooyu nag day day day day mujj metti ba nga xam ne ñi nga xam ne ñi ngi dem ci géej yi jom rek moo leen yóbbu. parce que ku ne xam na conséquences yi ci nekk jafe-jafe yi ci nekk man am na ñu ma xam ñoo xam ne tey leer na ma ni ci géej gi lañu des te bi ñu dem xam nga ne jom rek moo leen yóbbu ak bëgg yoo xam ne dinañ ci mën a jàppale seen ay mbokk dinañ ci mën a suturloo ba mën a dellusiwaat seen réew. alors selon vous monsieur Kanté Fatem baal ma maa ngi ñëwaat ci yow léegi selon vous lan mooy justifier tey ce silence assourdissant bi nga xamante ne ni moom moo am ci euh, non dirigeant actuellement face à ce phénomène grandissant bi nga xamante ne ni nga am chaque jour ñu dégg ni am na ay gaal yoo xamante ne ni mi ngi dem. waaw oh, silence bi moom day montrer seen seen incompétence. parce que nit nag ak lu mën a xew rek da ngay wax li nekk parce que buñ ci amoon solution je pense que génn nañ day moom juste justifier qu'ils ils sont incompétents day wane ne tamit seen commencé parce que boo mënul lijjanti lu mel nii mënoo ko saafara euh, am discours parce que mënoo wax ba au pouvoir bëgg a continuer di wax wala bëgg a continuer di joxe ay explications mënatul nekk. xam fu nit ñi di xaar nit ñi lay mooy nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem liggéey indi leen ay solution tegal leen ay actes yoo xam ne actes yu concret la euh, waaw. ñu jeunesse bi dañoo perdre espoir amatuñu espoir amatuñu repère euh, est-ce que un tout petit peu vous n'avez pas failli aussi à votre mission parce que vous êtes resté 12 ans au pays bu ñu demee tey ba ñëw peut-être euh, euh, trois mois quatre mois lañ ci def et du woon ne politique politique de la jeunesse bi moo échoué tey ba yegg si si débordement comme on dit

ñoom ñu am solution ñoom ñoo jaay Sénégalais yi projet tey fi leen Sénégalais di xaar mooy réew moo xam ne day tege day nekk monsieur Kande du ma d'accord day nekk ci voie day nekk ci day nekk ci day nekk ci voie voie voie <laughs> nouveau opposant yi fi ñu ko jàpp ba dafa yomb ah. soo waxee rek ñu ne comme yéen a waxoon ñun mënuñu ah bien sûr mais comme loolu la bañ a mënuñu bañ a comparer quand même parce que hmm. xam nga lu tax comparer non je sais mais xam nga lu tax à chaque fois ñu waxtu duñ ci tudd parti bi fi hmm. nekkoon hmm. tey parce que ñoom biñ fi jógee dafa yàggagul Euh, ñi fi ñëw tamit bi ñu ñëwee yàgg na donc suñu demee ba ñu xamante ne ñu fi jógee ak moment ñu fi jugee ak bi ñii di ñëw mu war a mën a am benn benn boucan boo xamante comme si bomb bombe buy exploser la ça veut dire que kon ñi fi jugee aussi en quelque sorte ils sont responsables. Euh, mën nañ nekk responsable mais xam nga fi wax ji gën a fi wax bi gën a nekk pour moom. Mhm. mooy que dafa am yaakaar bu ëpp bu ñu bu ñu bu ñu def ci boppu sénégalais yi. y avait 19 candidats. 19 candidats yi am na ñoo xam ne bu ñu gañe woon pression bi duñ ko am. Mm. ah oui am na pression boo xam ne ko am mais xam nga lépp luy ut nañ ko ut ci dëgg c'est-à-dire ñoom li ñuy def ba gañe candidat yëpp mën ko def ba gañe mooy da ngay am fit di wax loo xam ne yow leer na ne li ngay wax mënoo mais yow na nga accéder au pouvoir mm-hmm. bés boo itu tamit nag nit ñi li nga leen digoon da nga koy def parce que mën nga nax nit ñi ba mais mënoo leen a nax ba faluwaat. deuxième mandat mënoo naxe naxe naxe naxe naxe ba amaat ko donc li amoon solo mooy ñoom bi ñu ñëw nañ wax nit ñi dëgg léegi nag comme ñoom am nañ projet ñoom bu ñu ñëwee Sénégal dina dina dina dina dàq ci àdduna bi. Mhm. bu ñu ñëwee li ñu war a def dinañ ko def. léegi ñoom ñoo nekk au pouvoir léegi li am solo mooy bàyyi wax ji te concentré wu ci ittey sénégalais yi ci jafe-jafe sénégalais yi ci quotidien sénégalais yi genre ñun foofu la ñu leen di xaar xaar ñu leen mhm. seen taxawaay war a nekk en tant que nouveaux opposants ban taxawaay ngeen fas yéene am vis-à-vis des nouvelles autorités. ban taxawaay bi ngay am lenn la rek. Hmm. mooy mooy mooy euh, taxawaay bi nga amoon démb ak barki démb hmm. ay citoyens sénégalais lañ ay nit lañu ñoo xam ne. Euh, suñu réew jëm ca kanam mooy li nga xam ne moo ñu ñor. waaw Sénégal di tardé toog 5 ans di dellu gannaaw ñaanuñu ko yàlla. Mhm. li ñu ñaan yàlla mooy Sénégal jëm ca kanam ak loxo yu mën a nekk. ñun li ñu concerné. Mhm. mooy Sénégal na jëm ca kanam. na nañ ko teg ci les rails du développement. alors euh, dañuy descendre toujours euh, ci cette question mu concerne l'immigration clandestine je rappelle que nous sommes toujours ak ki nga xamante ne ñi moo di